ak ñi mu jàngal ñooñu ñëpp TIV info dina ci ànd ak yéen ci wàcc ay gàmmu képp koo xamante nii tamit yaa ngi jubal si tiwaan pour gàmmu si ñu ngi lay ñaan nga contacter TIV info ci 77 131 70 89 moo xam ñi def wàllu commercial suñu bokk annonceurs yi ñu ngi leen di contacter. daanu dugg nag ci kër kilifa yëpp ci njabootu maam Seydi El Hadj ak ay muxaddamam dinañ leen invité waxtaan ak ñoom ci solowu Seydi El Hadj Malick ci njàngaleem ci ñi mu jàngal lu tax gàmmoo am ak lan moo tax mu def ko ci réew mi ak Seydi El Hadj Malick ñaata zawiya la def ci réew mi yooyu yëpp TIV info dina leen ko eh, toppal incha allah